ma tooñ alaaji njaay ma gis mu laxas kurus ci loxoom ma ni ko alaaji kurus gi nga laxas ci sa loxo bi foo ko teg moom itam ci dëggu gi mu ni ma fenn nag ma ni ko ah est-ce que boo nekkee ci géewu wadifa bu yonent bi sallallahu alayhi dee ñëw ak saxaaba yi di nga ko gis mu ne ma masaguma koo gis de ma ne ko kon sañoo ko ku dul ku dul gis yonent bi buy ñëw ak saxaaba yi sañuloo laxas kurus ci loxo parce que signe la mook def ko ci baat ñooyam wante comme dañ doon waxtaan ci daara te sunu mbokk adjoint sous préfet mu ngi toog ma ni ko waa monsieur le préfet adjoint préfet adjoint sous préfet ñaata étoile lay takk mu ni ma benn étoile kon benn étoile bi boo ko gisee ci administration nga xam ni kii sous préfet la mu ne ma préfet ñaar gouverneur ñett ma ne ko waaw ki nekk adjoint sous préfet takk ñetti étoile dajeeg ministre de l'intérieur te xam na hiérarchie bu mu bokk nu mu koy def mun ma da koy wàcce

bi takk galon wu général bi romb moroomi soldaaram ñu di ko saluer ndax xàmmee nañ galon bi bis bu dajee ak général bi te mu xam ni kii soldat wu premier classe la ci saa si da koy tëj ba pare dégradé ko noonu la ame ci tariqa bi am na martaba boo xam ne ni soo ci eggul sañu loo laxas kurus ci sa loxo su dee laxas ko ci sa baat nag dangay weddi waxu cheikh radiallahu loo koy weddee mooy cheikh nee na ku bokk ci sama tariqa booy faatu dangay nelaw ba kër a ngay faatu wante soo koy def ci sa baat te kurus gi di allahumma tolloo gi muy tolloo ak sa dënn ak sa xol peri kurus yi da ciy def jeexital jeexital boobu nag bis bu ruux gi dee génn ba tolloo ak dënn bi ñaari leer lay doon yoo xam ni acier lay doon ñuy xëccoo nga sukuraat sukuraat bu metti te fekk cheikh waxoon na ni sama taalibe sukuraatam du metti moo tax yëf yi du lu la neex rek def ma ni ahmadu 53 la soo ko multi